Monsieur le Président, on n'aura pas beaucoup de temps pour entrer en détail dans le budget du ministère, mais je voudrais juste euh, dire, Monsieur le Ministre, que Air Sénégal est une fierté pour nous tous. Et je pense qu'on doit travailler à accompagner davantage ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont en train de faire de bonnes choses. c'est un. Deuxièmement, je pense que l'ASPT doit être aussi accompagnée parce que c'est au niveau de cette Covid qu'on des choses qui sont possibles pour ce pays. Et je pense que aussi cette agence mérite d'être accompagnée. Monsieur le Président, je pense que vous êtes une fierté pour ce pays et pour le Sénégal. Tout à l'heure, mes collègues ont parlé du règlement intérieur. C'est vrai. Mon collègue de Kédougou est sorti, mais il a dit tout à l'heure que nous sommes tous des députés, c'est vrai. Nous sommes d'égale dignité, c'est vrai. Nous sommes tous élus par nos pères, c'est vrai. mais ni ñu fi ñëwee yamul one est parti en campagne électoral ñu dem ci sénégalais yi mu am cinq wala yu bari ay taabal yu ñu lal taabalu Benno Bokk Yaakaar moo jar moom la ñu jënd pour être président de l'Assemblée il faut avoir une majorité pour avoir plusieurs commissions il faut avoir une majorité pour avoir de grands postes de responsabilité dans une institution parlementaire, il faut avoir une majorité. Puis personne n'est tombé du ciel pour être député. Nous tous, nous sommes allés en campagne électorale et les Sénégalais nous ont dit que yéen la ñu wóolu bëgg yéen la ñu béy jox ñu lu bari jox leen tuuti ku nekk nag na nga doy loolu li nga yor peut-être xamu leen li ngeen yor waaye ñun de li ñu yor xam nañ ko te dinañ ko téye téye bu wóor donc il faut arrêter. de dire yooyu règlement règlement intérieur bi mais dañ koy lire xam nañ ko l' article 119 li mu wax moom dafa lire ba pare mel ne dafa biaisé un peu le le le mooy dañu ne les commissions proposent le président désigne waaw mais loolu leer na mais pourquoi aujourd'hui ñu bëgg ñëw fii di wax na non non non mais je pense que il faut que l'on se respecte même dans certains groupes bëgguma dugg ci benn groupe nañ fay désigner sax nga koy contester ci biir. xoolal bu leen ñu waxloo on sait tout ce qui se passe dans ce pays on sait ce qui se passe dans cette institution il faut savoir raison garder loolu laa amoon ci lu may wax maa ngi leen sant leen këram merci beaucoup honorable président Abdou Mbow. Euh, la parole est à notre collègue Marie Sow Ndiaye qui sera suivie par notre collègue Mame Diarra Fam. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur les ministres, collaborateurs des ministres, très chers collègues maa ngi leen di nuyu. Monsieur le Président bëgguma di di ñuy topp débat bu baax parce que la question est tellement importante waaye ki fi wàcc léegi dafa am lu mu wax table ba jar ak table ba jarul ak table ba ñuy automatiser lépp xam nañ ko te askanu Sénégal mi ngi ñuy xool monsieur le ministre avant may commencer aussi nga permettre ma rek ma associé u si encouragement